mais sëñ Touba rek la ñuy kenn du sëñ Touba ku dul moom gëmuñ la barki Seex Béthio Thioune. c' la première fois. waaw ah, ñu fekkee ko ñu fekkee ko waaw kii Magal. Magal Touba Magal Touba. Mami Thiam. jabaru Ava si looleen ne. waaye mbégte ma jot na. sëñ Bamba woote na. ba tàkk na barke Seexul Xadim. sooral ba tàkk na suba la première safar barke Sëriñ. hi guys hi everyone you know the vibes bégee naa leen today is a big day parce que tey la jour Bamba day ñoo ngi nii sol suñu grand mbubb maanaam grand sol suñu yëre olof di dem. Bamba day ba ah? jàngi xasida jàngi xasida xoolaale bés ba li fa xew Fall moroom la yow bés Serigne Touba bi waaw tey tey du bés bu ndaw ama bëgg sa bopp tey du bés bu ndaw Serigne Touba mu awati ndaw waaw amul morom kon sama gars let's go to the Bamba day ci diggante maraag masé après ñu dugg si terrain bi man ak booyee ñu dem teelu ñu dem nag parce que dañ doon xaarante ñi liggéey nañ ñi teelu ñu yeew bu fekk nañ marché bi jeex mais mënuma bañ a def vlog parce que ñu bëri ñu ngi may laaj fii Bamba Day bi nan lay demee boo aimé leen vidéo bi ngeen abonné ngeen partagé bu leen fàtte yéen zéro sibet sama promo code 21 avril ça veut ngeen seetaan ngeen xool fii gars yi nan la ñuy dundee Bamba Day bi Bamba Day bi neex na comme màggal Touba seetaan leen ngeen gisal seen bopp. Baye Fall ma ñëw fekk fi Baye Fall ah? laa la Bamba Day baa ngi nii gars yaa ngi nii biir Arlem loo wax si si kii YouTube la ñu. damaa kontaan wa New York teral nañ ma Fallou teral na ma jox ma kañ ma jox joxal ma 40 ma la joxal 100 yow kañ ma jox xaalis. la 10 10 dollars joxal ma. am nga borom xaalis. ba ma jaaxal jëlee yoon na nga mën a xam. doomu lay Saalum Touche ah. Saalum Saalum ba borom daaru la. Fallou Fallou daa bëgg borom daaru. Fallou doomu lay Saalum. Fallou ndongo la nga daal daa bëgg borom daaru. Waaw Fall yaa ngi nii. Sëñ Bamba day kontaan. Sëñ Fallou imama. moom ñëw waaw yow moo mel ni maa joxe yaa ma sëñ Fall lay imaam maay sëñ Fall waaw waaw imaam maa la jox ah, ñaar ñaar ñett kontaan nañ. Ah, waaw mais siyaar naa la. yow jàmm salaamaaleykum dégg naa leen de. yéen a ngi ci Bamba Day bi. nekk leen de. amul na Baye Fall yu bëgg la da nga baax waaye ndeysaan xoolal lii xoolal lii bu Bamba bi rek nga mën. Fall la moo tax ma woo la ne la ñëw nga jël si ma. nangoo ñëw jël si ma. ñëw. ndeysaan am nga jox. kon ñëpp ñu ne da ngaa bëgg saa ngay saa non de. nga fàtte da ngaa sañse. sañse nii nga def ah. seet tët tët tët tët bu bàmba day bés bu ndaw. waaw mais ma non la woowee tey du ma la woowee eh tey bés bu mag la du ma la woowee. Serigne Modou Moustapha laa lay woowee tey nii nga def ci bàmba day jël suuf gi naa suuf gi iya. suuf gi. Iya. yàq na ko yàq na ko. tas yaakaar ñëw ba suuf gi tas yaakaar. waaw tas yaakaar. barki yàlla non. Baba. yow Bamba day nga sol sa lii la ma la solo. non damaa changé. ah changé waaw mais Serigne Serigne ñi nga def si Bamba day Serigne ah sañ se tëj tëj tëj ay séeréer eh sëñ Mor sëñ Mor Bamba ñi nga def si Bamba day ñoo ngi siyaar am ñoo ngi siyaar. affaire bi par ancien vidéo. ancien. après booy yëpp dajaloo ñu nekk nii di dox di dem si gars yi si jàng yi quoi. ci côté maar ci côté maar. Bamba dee la nekk ngir yàlla nag góor. barki yàlla sama nijaay laa gis. Baba ñëpp sa yore olof yow nga ne doo sa yore olof. ñooñu dugg si lañ Ba Fall yaa ngi ñëw si biir si Jalle. Eh, Fall da ngeen di avancé. si loo ne. léegi ni nga def si si saa rek rek. sama sama taw yaa ngi nii. ay see waa ngi. see non ñu ma gis gis naa leen. jaww ji jaww ji jaww ji. bu taw bi bu taw. waaw mafia bàyyi fecc na góor nga kilifa nga nag yaa ngi nii jantal lekk daal di suñu Touba ah xanaa bëggoo mën a yor ñu ay relation bu seen ah Taï Sine. waaw si neer ku bàyyi. waaw ñu ngi lay bëggee su rafet bi bàyyi Bamba Dey. ba nga naamal daal. non non Mafia Guédiawaye baa ngi. affaire Guédiawaye la. affaire Guédiawaye la. biir Balla Gaye la nga may Guédiawaye. ñu ngi lay toog xaaral. Ah! bên đây bạn gis naa lom ak mami Thiam jabaru Ava si loo leen ne photo yi photo yi photo yi ma bokk photo yi non si digg bi si digg bi laay tax si digg bi déedéet photo ma sa téléphone dafay envoyé non non léegi numéro mami la waaw mami dama ko envoyé dama day arno an sa yére eh c'est ça bi c'est ça bi arno sama njaago bi mi ngi nii waa taxaw déedéet bu ma jox lépp de bay bay bay bay bay bu ma jox lépp bu ma jox lépp bay bay bay bay jox ko kii jox ko jox ko daam démb dama def lu ma neex ana bu dugg sa biir kii am na bu wadd de non waddu la ko la wadd mais Ardo Ardo mi ngi nii mi ngi nii Ardo kay Ardo Ardo an sa yéene olof sama njaago bi non boy yaa ngi ñëw ci Bamba day bi dama juum dama def lu ma neex barki Serigne Touba mais Serigne Touba rek la ñuy topp kenn du Serigne Touba ku dul moom gëmuñ la barki Cheikh Béthio Thioune ak soxna Aïda mu ñuy yaakaar lañ lay wax nii ñun Serigne Touba rek la ñuy topp après gars xool gars yi nan la dundee seen bamade ñuy toog xama ku nekk di màggal bés bi sëñ Tuubaa amul morom bés bi du bés bu ndaw gars yi dañ ko war di màggal chaque année chaque année te gis nañ gaa yi jox nañ ko àq ak yelleef waaw gars yi joxe lekk sañse maire toog sañse rafet na daal rafet na yàlla jëm kanam gën a waaw mais léegi Bamba Day bi la. Bamba Day bi la gaa yaa ngi si liggéey bi si waar bi. waaw yéen a nekk si waar bi. bëgg lekk yow. noo def jënd caay gi. am angry boy. si Bamba Day bi ah. waaw waaw si Bamba Day bi. si biir Bamba Day bi. waaw borom caay gi quoi borom caay gi bàyyi borom caay gi waaw xam nga bu ma ñëwee États-Unis. moom laa fi njëkk a gis muy expliquer yenn affaire yenn bagage yi naan ma lii ak lii. kii nag mooy Bamba sama gars yi. waaw yéen a ngi ci biir dëkk bi di ko yëngal. Palla ngi nii. Bamba ngi nii. Palla ngi nii waaw. <laughs> What's up man? How's life man? What's up yéen a ngi baax. ñu ngi baax waaw naa yéen si Bamba Day bi. instant yéen a ngi noos de. ñu noos naa ngi nànk rek. What's up añ nañ ba pare. yaa ngi baax. lu waay wax. dañoo demoon añi mais añi bi ñuy añ damaa xiifoon ba fàttee film lañ doon añee. mais wan naa leen ah. kii bi neex na mais loo wax si Bamba Day bi gars yi. Bamba yi. waaw c'est la première c'est la première fois. waaw ah, ñu fekkee ko comme Magal. comme Magal la Magal Touba. niñ nekkee nii. lii dafa neex dafa doy feebar. Bamba Day bi yow ñun añ nañ ba pare te gisuñ nañ añ. bari yéen ay demee añ. lii lañ. mooy xam lañ def fële lañ añ. bàyyi ñu fi ñu dem yow merci maa ngi wax sànq nit soo yaa ngi dégg sama sànq sama jooy waaw man netteer bi ma ci génn ñëpp ay la ñëpp ay la ñëpp amul nga ne tey bi moo tax ngay kii moo ma ci neex moo ma ci neex ak Dumse ah ci volop bi Bokar kaay looy wax gars yi nga xamante ne yow ñëw ci Bamba Day ah yow fi ja daal yéen waaw ah kontaan naa lépp kontaan naa nit ñëpp kontaan ah, waaw ñëpp kontaan loolu la may wax rek. maa ngi nii rek góor-góor rek waaw góor-góor waaw waaw. <laughs> yow dum na lay wax gars yi. maa ngi lay béggee yéen. yàlla ñu déggee ah. waaw maa ngi lay béggee. delloo si yow happiness rek. happiness rek. waaw happiness dam lay wax ci gars yi nga xamante ni ñëw nañ ci kii bi. non kontaan rek. kontaan moom lépp mbégte la. mbégte kese. mbégte kese. ah sëñ Bamba. mbégte kese waaye lii kenn mënu ko gën a Bamba. yoon wi yoonu mbégte yi j'espère que vlog bi neex na leen man fii laa mën a yem parce que après damay ñibbi mais bambade bi yemul fii guddi gi am na cant ñi am na yeneen gars am na yeneen affaire yu xew gars yi amee leen ngeen partagé merci beaucoup ba beneen vlog caa mënu moon bañ a def vlog bi